day jàll di wàññi sëy yi nga xam ne yu araam la bu àggal ci koo xam ne jëkkëram da koo fase ñetti pase moo xam dee ci yoonu Maalik daa jékki-jékki ne ko fase naa la ñett mbaa mu ne ko fase naa la fase mu dog ndax dañuy xam ne dog moom ñett a koy def mbaa mu takk ko fase ko muy benn dellu ko takkaat fase ko dellu ko takkaat fase ko muy ñett lu mu ci mën doon rek ndegam fase na ko ñetti yoon jigéen jooju da koy daal di araam li feek muy amaat beneen jëkkër te sart yooyu wax daje ca nga déglu sart yi benn benn day bari ba ci jëkk mooy ka ko takkaat takk ko takk bu wér te bañ a doon takk bu baaxut su fekkee ne jigéen ja amaat na jëkkër waaye takk bi nga ko takk dafa baaxut du tax ka ko njëkkoon a fase ñetti yoon mën ko takkaat lu may nag takk nga baaxutoon waaye yoon daa wax ne sëy boobee daa bokk ci yi muy saxal bu wéet xasi am kon dagam takk bu baaxutoon waaye ko takk wéet naag moom ba yoon ne da koy saxal kon jëkkër joojee ko yore bu jotewaateeg moom beneen yoon nga xam ne jote gam jote woon ak moom ci bi ko yoon saxalagut di ko jàpp gannaaw du ko yoon saxalee ne du ko dindi ndax xas nañu wéet ne jëkkër ja jotewaat ko jigéen jooju beneen jote gannaaw ba nag su ko bàyyee da ko njëkkoon a fas ñetti yoon door koo mën a takkaat sartu ñaareel ba mooy an yakoona an nikaahu laasiman li zawjayni ka ko takkaat takkam boobee nekk sëy bu war gannaaw bu sëy bu wéree na nekk sëy bu war sëy bu war mooy kenn sëñ te ñëw ne daa koy dindi ci sama coobare bu fekkoon ne ab jaam moo takk noonee te awu ci digalul sang ba sang ba mën naa ñëw ne da koy dindi bu fekkoon ne it gone moo daal takk noonee te amu ci ndigal bu bàyyi ndikkee ci misaal kilifaam nga ko am ay mbiram daal ne mën naa koo dindi daa ko dindi bu sëy ba mel noonu na nekk sëy boo xam ne wér na te itam kenn amul sañ-sañu dogu ci ne man maa koy dindi du tee nag bu sëy ba doonee bu mel nii nga xam ne am na ko sañ ñëw ne maa koy dindi bu ko wéyalee itam te gannaaw ba mu ko wéyalee jëkkër ja joteeg soxna soosee kon bu ko fasee mën naa delluwaat ci jëkkëram ja ko fase woon ñetti pase loolu mooy sartu ñaareel sartu ñetteel nag mooy jëkkër jooje nga xam ne moo ko takkaat na doon kàllaf waaye bu doonee gone bu tàggoog moom itam du tax mën a dellu ci jëkkëram ja ko fase woon ñetti pase sartu ñeenteel mooy jëkkër jooje ko takk bu mu yem ci takk ga na àgg ci joteeg moom ba lu néew néew bopp sawukaay ba dugg fa nga xam ne fa la ñu baaxoo joteeg jigéen ba noppi tam fekk sawukaay ba jóg nga xam ne su joteeg moom te léppi bopp sawukaay ba duggut mbaa duggalu ko fa nga xam ne fa lañu baaxoo joteeg jigéen dañuy joteel du tax jëkkër ji njëkk ja man koo takkaat bu bopp sawukaay ba duggut mbaa lépp duggut mbaa fekkul sawukaay ba jóg boobu sart xëtt na jëkkër jooju ba muy joteeg moom tey sart ne na bopp sawukaay ba dugg na sawukaay ba dugg ca fañ baaxoo joteeg jigéen ja waaye bu dugaloon sawukaay ba ci buntu suuf ba mbaa mu def ko ci diggante yaari lupp ya ci gàttal rek bopp sawukaay boobu daal duggul fa nga xam ne fa la baaxoo dugg ci biir ndey joteeg jigéen rek su boobaa boobu sart xëtt na sart juróomeel mooy jamono jëkkër ji joteeg soxna sa ba mu di joteeg goo xam ne aaye woon nañ ko ko waru ko woon a def ni ki daa fekk soxna sa toll ci gis baax mbaa dereti wasin mbaa fekk mu armalaaj mbaa fekk mu woor mbaa fekk muy listikaaf su fekkee jëkkër ñaareel di ko takkoon noonu jote naa ak moom waaye daa fekk ba mu joteeg moom muy jamono aaye mu joteeg moom du tax mën a dellu ci jëkkëram ju jëkk ja sartu juróom benneel mooy kenn ci ñoom ñaar bañ a weddi jote googu jëkkër ji ko takkaat moo soxna sa bu ci kenn ko weddee jote googu rek ni jote gi amut kon jëkkër ji ko fase woon ñetti yoon du ko mën a jëlaat faaw rek ñoom ñaar ñëpp ñu bokk nangu ne jote nañ jote gu wér wér ci ni ñu ko waxe woon mbaa kenn nga wax ko kenn ko weddiwu ko mbaa ñoom ñaar ñëpp ñu ne topp rek noonee ñu jàpp ne kon jote ba daa am waaye bu ñu ko bokkee weddi mbaa kenn ko weddi ko rek bu ñu tàggoo itam soxna soosu mën dellu ci jëkkër ji ko njëkkoon a yor loolu mooy sax juróom benneel juróom ñaareel nag mooy ñu yëg ne jigéen ji ni ko mayee jëkkëram jeex rek léegi wéet nañu wéet koo xam ne jote googu mën na caa am waaye bu fekkee yëguñu fenn fenn fu ñu wéetee ba jote boobu mën a am rek bu ñu tàggoo itam duñ nangu jigéen jooju dellu ci jëkkëram ja ko njëkkoon a fase ñetti fase mel ne jëkkër ji ñu ko mu jëmee daa fekk mu nekk Italie mbaa Amérique te yëguñu nag fu fi ñu bisee ba ñu wéet ñoom ñaar wala fu ko soxna si fekkee fa mu nekk doonte sax ñaari jigéen rek ñoo seere ne ñoom ñaar yootu lañu wét goo xam ne jote googu xaj na ci ko it ñu doyloo seere ñaari jigéen ca loola waaye bu ñëwul fenn fenn fu wét googu amee rek buñ tàggoo itam duñ nangu jigéen ñi dellu ci jëkkëram de ko yoroon te bàyyi ko saatu juróome teel mooy jote googu ñu jote na ko soxna su yëg fekkoon soxna sa daa doxoon ci yooyu jamono béygul jote ba am da doon say ci misaal mbaa soxna su doon xëm mbaa bu doon nelaw ba góor ga jote naag moom waaye yëgutoon jote ga moom soxna sax kon gi tàggoo itam doon dellu ci jëkkëram ci jëkk ja góor gi moom muy jëkkër ji sart ñu mu yëg jote ga waaye soxna si moom faw lu jote googu kon sartu juróom ñetteel mooy soxna sa ba jëkkër ji jote moom mu ànd ak sagoom ànd ak xelam yëg jote googee jëkkër ji rek moom yooyu jamono bu toll woon ci dof mbaa mu nelaw soxna sa fexe ba jote ak moom rek yëg ga soxna si yëg jote ga dal nay doy jëkkër ji moom sartu ñu mu yëg jote googee bala ngaa jàll ci loolu wax naa ko léegi bu fekkee ne ka takk jigéen joojee yoon dane takk bi baaxut te amul luy sax yoon wéyal sëy boobu kon moom du baax waaye bu fekkee nag yoon dane sëy bi baaxut waaye wéet am na te kon da koy saxal gannaaw ba yoon saxalee sëy bu yàqu boobee bu jëkkër ji jotewaat rek soxna sa door koo bàyyi nag kon dana mën a dellu ci jëkkëram ju jëkk ja waaye lay tax mën a dellu ci jëkkër jëkk ja mooy gannaaw bi yoon ne ndegam wéet am na day bàyyi sëy boobu wéy jëkkër ji nag jotewaat soxna sa door koo bàyyi loolu laay tax mën a dellu ci jëkkër ji ko fase woon ñetti fase farce bi ci mujj mooy jëkkër yi ñaareel joojee mu bañ a jublu ci takk gam ko takk jotee moom rek fase ko ndax jëkkëram njëkk ja mën koo takkaat bu fekkee ne ki mujj a takk moom amu ci jenn yéen ju may rek du jotee moom daal di koy fase ndax mën a dellu jëkkëram ji jëkk ja nga xam ne kon daganul rek dellu soxna si ca ko njëkkoon a fase rek mooy yéene takkam googee buñ xoosee xam def na lu araam faaw ñu fas takkam googu te du tax jigéen jooju mën a dellu ci jëkkëram ji ko njëkkoon a fase ñetti fase jëkkër ñaareel jooju nga xam ne moo takk jigéen ci moom ndegam da caa juddu rek mu mën a dellu ci jëkkëram ci njëkk ja def na lu araam te du tax mën a dellu ci jëkkëram njëkk ja doon sax da caa boole ne dama koy takk ngir mu dellu ci jëkkëram njëkk ja waaye su ma ci gisee lu ma jaral téye ko daa koy far téye koy du ko tax baax ndegam am na yéene tàggoog moom gannaaw bu ko takkee ngir mu dellu ci jëkkëram njëkk ji rek loolu daal ni yàqu mbir ma wala nag dem jigéen ji ci boppam su amoon yéene yi taxaw temm ci góor gi takk ko bu ko takkee nag mu daal koy tàppaas ba mu fase ko ndax mën a dellu jëkkëram jëkk ja loolu ci wàññi dara ba tey góor gi nga xam ne moo ko fase woon ñetti pase su ci bëggoon a jotaat tax mu dem ci góor goo xam ne xam na ne day takki wacc rek day takki wacc rek mu fexe nag ba xiirtal ko ci mu dem takk kookee kooko daal di koy takk jotee moom daal di koy bàyyi du ci yàq dara du tee rek dana ko mën a takkaat kon jëmmi jëkkër ji nga xam ne daal mooy takk takku ñaareel gi mu yéene ci delloo ko ca jëkkëram njëkk ja loolu rek yàq waaye pexe mu jigéen ji man di def mbaa jëkkëram ja ko yoroon pexe mu man def ñoom ñaar te jëkkër ñaareel ji moom ñëgu ca dara bu jëkkër ñaareel ja tàggoog moom rek gannaaw ba mu jotee moom rek jëkkër njëkk ja daal di koy mën a takkaat waaye nag jëkkër ñaareel jooju moom bu xasee jublu ci takk ga jigéen ji mën a dellu ci ku njëkk ga rek moom loolaa koy yàq te jàll ci jigéen ñi nga xam ne araam nañ ci góor gi mu takk leen mu agsi nag ci ab jaamam boo xam ne moo ko moom moom góor gi képp koo xam ne moo ko moom mu di jaamam mënu koo takk soxna ndax buumuk sëy ak buumuk njaam dañoo safaanoo buumuk sëy day buumuk nawlonte ak teralante buumuk njaam nag moom nekk buumuk noteel ak toroxal kon yooyu jamono bu góor gi amee ab jaam jaam ba ak moomee la ma mën na jotee moom li muy jotee soxna ñu koy tudde ab taara waaye nag du doon soxna ba tey yooyu jamono bu doomam amee ab jaam bu jigéen mbaa ab sëtam am jaam bu jigéen du ko mën a takk soxna ndax dañuy jàpp ne lu sa doom moom rek mook loo moom ñoo bokk kon jàppal ne kenn sañ ta takk jaam bu jigéenu boppam kenn sañ ta takk jaam bu jigéen boo xam ne doomam ko moom mbaa sëtama ko moom nga seetlu foofu ne jigéen ci yooyu jamono bu amee jaam bu góor itam du mën a wax jaam bu góor ba muy joteeg moom li nga xam ne moom la jigéen di joteeg jëkkëram góor kay lañ wax ne yooyu jamono bu amee jaam bu jigéen mën na joteeg moom ni góor di joteeg soxnaam waaye nag yooyu jamono jaam bu jigéen moom bu amee jaam bu góor itam du tax mu sañ a joteeg moom joteeg góor jigéen moomel ga rek moo ndox seen diggante bu ko neexee nag goreel ko ba mu goree mu wëlbatiku def ko jëkkër ba tey moom góor gi bu ko neexee mu goreel jaamam bu jigéenam wëlbatiku def ko soxna waaye daal kenn mën ko boole buumuk sëy ak buumuk njaam mu ne bu fekkoon ne sax góor gi daa wëlbatiku moom soxnaam nga xam ci cosaan moom moomu ko woon daa doonoon rek jaam bu jigéen mu takk ko te sañoon na ko ndax moomu ko woon gannaaw ba wëlbati ko moom ko rek moom gu yees mel ne ka ko moomoon faatu mu doon ko ca moom mbaa ka ko moomoon ne ko may naa la ko mbaa sarax naa la ko bu ko xasee moom rek buumu sëy ga daal nay dog buumu njaam nag daal di taxaw temm kon góor bu fekkoon ne daa takk jaamu bu jigéenam te yoon aaye woon na ko yoon da koy tas te du ca tudd pase su fekkoon na it góor gi daa takk soxna soo xam ne jaam la gannaaw ba mu wëlbatiku moom ko it sëy ba tas na noonee mooy buumu sëy ga dañ na buumu njaam daal di taxaw nga seetlu foofu ne bu fekkoon ne jigéen ji ab jaam da ko takk muy jëkkëram su wëlbatikoo jënd jëkkëram joojee moom ko rek buumu sëy ga daal di dog ba tey bu fekkoon ne doomu daa wëlbatiku jënd jëkkëram joojee nga xam ne kon jëkkëram ji soppiku na jaam boo xam ne doomam a ko moom ba tey kon sëy ba daal nay tas bu yónnee sëy boobu tas na nag du ca tudd passé nga xam ne jigéen jooju nga xam ne jëkkëram daa nekkoon jaam ñu ne ko boo wëlbatikoo moom ko rek sëy bi tas na su ne woon goreel naa kii doonoon sama jëkkër kookee wëlbatiku takk ko itam dañuy jàpp ne mësu koo fase benn yoon ndax tas ga ko yoon tasoon bilaa talaaxin la woon maanaam tudd ca woon passé kon fii mu nekk nii bu ko takkaatee itam dañu mel ne tëli mësu sëy ñoom ñaar ba tey rek yetti bu mooy tax ñuy wax naa faaw jëkkër jaaraat fa baay bi bu xësee jotee jaam bu jigéen boo xam doomam ko moom kon xam nga ne jaam bu jigéen boobee daal ne araam ca doomam joojee ndax li ci bàyyam bi bànneexu moo xam ak nit jotee moo xam aggu ci jotee waaye daal moom mi baay bi boo xasee bànneexu mbaa mu jotee jébbeer boo xam ne doomam ko moom daal na xam ne kon doom ja jeexlu na ci jébbeer boobee dañu wax baay bi ne ko nañ xayma jébbeer bi fu xayma ci toll rek nga fay ko sa doom ji te féetiwoo ko yow baay bi su baay ba ñàkkee ba mënta fay xayma ja ñu topp ko xayma ja te buñ ko toppee topp mënta fa itam mënees naa jaay jaamu jigéen ba ci kaw nag mu bañ a ëmb ci baay boobu su fekkee ëmb na ci baay boobu kon soppiku na ummu walad te ummu walad kenn du ko sañ a jaay su fekkee ne jébéer boobu nga xam ne doom jee ko moomoon doom ji jote woon nag moom gannaaw ba nag la baay ba joteeg jébéer boobu kon xam nga ne baay deg doom ñun ñëpp jote nañoo jébéer boobee ba tey bu fekkoon ne jote nga dëgg-dëgg ci sawkaay amut waaye doom ju góor ji moomoon jëbbéer bi jot na am ci moom bànneex bu aggul ci jote danaa ba bàyyee nit noonu am bànneex ci jëbbéer boobee doonte aggul ci jote du tee ñoom ñaar ñëpp lay araam bu fekkoon ne nag doom ju góor ji moom daa moom rekk jëbbéer bi waaye mësta joteeg mu mës ca am bànneex bàyyi bi nag jekki-jekki joteeg moom ba mu am ca bànneex kon doom ju góor ji moom jëbbéer boobu araam na ci moom li mu koy moom moom ndax li baayam joteeg moom ba mu am ca bànneex kon ba tey bàyyi ba rek moo koy téye ci kaw nag fay xayma ji doomam jooju nga xam ne moom moomoon jébéer bi ni ñu ko waxee woon léegi jébéer bi nga toll nga xam ne doom ju góor ji moo ko moomoon te joteeg moom bàyyi matam joteeg moom ñu wax ne araam na ci ñoom ñaar ñëpp kuñ ci xam ne ba nga joteeg moom ca la amee doom ci jote ga daal ne soppiku umul walat ci yow umul walat nag mooy jaam bu jigéen boo xam ne xas nga am ak moom doom ba mënatoo koo jaay mënoo koo def nen lu may téy rek bis bis boo deexee moom mu gore la neexee itam nag gaaw goreel ko bu la neexee itam nga may ko jëkkër mu sëy yi fii nag moom dane doom jeeg bàyyi bi koo ci xam ne bi nga jotee jébéer boobu jébéer bi far na am doom sopp ku na umul wala te dañuy wax ne kon gore na boole ci buñ xaar ci am ak moom doom faatu mu door di gore ndax saa yoo xam ne umul wala ba dafa araam ci ka am ak moom doom dañuy teewal ak goreem ku am jaam bu jigéen am ak moom doom te amul lu koy araama ca moom suñ ko wax ne ko mën nga koo téye di am ci moom bànneexub jote googu bis boo génnee àdduna rek moom mu daal di gore waaye lu mel ni nga xam ne ka am ak jébéer ba doom yoon da ko araamal ca moom dañ daal di teewal rek gore ga dañ ko xaar jëm dara kas na leeral ne moom bàyyi suy tatak jébéerub doomam ba tey jigéen mënta fekk jàmbu góor boo xam ne doomam ko moom mu di ko def jëkkër muy bëgg a wax nag jamono yi nga xam ne gor ak jaam dafa am yow boo nekkee gor lay tax nga sañ a takk jàmbu jigéen ñetti sart la sart jëkk bi mooy nga ragal ne soo tëkku soxna moom doo mën a téye sa bopp faaw da nga njaaloo ñaareel bi mooy alal sëy ji nga xam ne moom nga def ci gor doo ko am yow amoo ko ñetteel ba mooy jëbéer ba nga nar a takk na nekk julit ndax jëbéer boo xam ne du julit bu dee yahood mbaa nasaraan moom nga ko moom dalay may ngay jotee moom ni soxna waaye waaye nag jigéen joo xam ne daa nekk diine yahood mbaa nasaraan bala nga ko mën a takk day fekk mu nekk gor waaye bu nekkee jaam moom doo ko mën a takk mën nga ko moom nag niñ ko waxee di joteeg moom ci kaw moomeel ga fekk mu nekk diine yahood mbaa nasaraan waaye nag bu ko see nekk jaam noonu yow julit bi doo ko mën a takk soxna mel ni tey boo nekkoon ci réew tubaab yi ñu ne julit mën naa takk ku nekk diine yahood mbaa nasaraan te yooyu jamono ñu fay tudd gor ak jaam kon nga nekk gor ngay sañ a takk def ko soxna waaye doo mën a takk ka ca nekk jaam kon jàppal ne jamono yi gor ak jaam amee lu leen di teqale yow boo nekkee gor doo sañ a takk jaam lu may nga ragal ne boo takkul moom faaw nga njaaloo muy benn sart ñaareel ba àlli sëy jay tax nga am gor amoo ko ñetteel ba mooy ka ngay takk itam doon julit mooy jaam bu jigéen bu nekk julit te bañ a nekk jaam bu jigéen bu nekk ci diine yahoot mbaa nasaraan lañu ca daan bañ nag booba mooy boo takkee jaam bu jigéenub jaambur boo ca amee doom itam jaambur boobee moom jaam bu jigéen ba mooy moom sa doom joojee nga xam ne kon sa doom ab jaam lay doon te doo ca mën dara dañuy bañ sa doom ñu def ko jaam te doo ca mën dara moo tax ñu doon aaye ngay takk jaam bu jigéen bu fekk ne yow ngay gor nde bu fekkee ne yow jaam nga sañ ngaa takk jaam te du ca sart benn sart waaye nag doon gor ba noppi dem takk jaamub jaambur ñu daal di wax ne boo ci amee doom kat ki moom jaam bi moo moom sa doom jooju muy ab jaam loolu lañ ciy bañ li tax mu ne nag bu amatu lu xayri aslihi jàll ba ci inkaana xorran yuladu lahu minha daa bëgg leeral ne bu fekkee ne boo takkee jaamu jigéen boobee boo ci amee doom itam doom ci kenn du ko def jaam kon mën ngaa takk jaam bu jigéen boobee mel ne jaam bu jigéen ba sa yaay da ko moom mbaa sa baay moom ko nga xam ne boo ko takkoon ba am ca doom itam faaw kooko day gore ndax kenn mënta moom sa sët bu bàyyi ko ci doom bu góor mbaa sa bu bàyyi ko doom bu jigéen boo takkoon jaam boo xam ne sa baay ko moom mbaa sa yaay ko moom boo ci amee doom itam doom jooju faaw day gore ndax sa baay ak mbaa sa yaay duñ mën a moom kookee mu doon jaam kon duñ bañ nga takk jaam bu jigéen boo xam ne sa baay ko moom mbaa sa yaay ko moom ndax boo ci amee doom itam doom ci kenn du ko def jaam ba tey bu fekkoon ne jaam bu jigéen boobee sa baay moomu ko sa yaay moomu ko waaye yow ci sa bopp da nga dul am doom yàlla la bind jeesir doo am doom mbaa jaam bu jigéen bi ci boppam moo dul am doom ndegam doom du soqi koo ca sëy boobee rek kon amul lu ñuy bañ ci nga takk jaam bu jigéen ba ndax li ñu doon bañ ci nga am doom ñi def ko jaam di ci am ndax yow doo am doom mbaa jaam bu jigéen ba doo am doom li tax mu ne inkaana xoran ba tey mooy li ma waxoon léegi bu fekkoon ne sa bopp jaam nga duñ la bañal nga am doom ñu koy jaamal ndax ndegam yow sa bopp yàlla nattoo na la nga doon jaam kon duñ la bañal sa doom itam doon jaam ne yow loolu moo ci indi inkaana xoran jamonoy jaam xëyee la ne yow jigéen ji nga xam ne gor nga si jëkkër ji la takk gor la waaye dangaa fekk nag mu yoree soxna si jaam dañ lay wax seetal bu la neexee yuy ci sëy boobu bu la neexee passé sa bopp menn passé moo xam ne fay li du ci am mooy góor gi la sañ a fay li bu idda ji jeexee nag tamit jubawaat ngeen àndal sëy gannaaw bi nga xamee nag ne yor na soxna si jaam boo nangoo toog wujjanteeg jaam boobee ba noppi gannaaw ba doo sañ a tànn nag ne damay dem bi nga ko yëgee daal ngay seet bu la neexee yooyu ci sëy ba bu la neexee bàyyi waaye nag boo xasee taamu toog gannaaw ba doo mën a tànnati dem ba tey mu ne bu fekkoon ne yow jigéen ji gor nga jëkkër ji la takk gor la xamoon nga ne itam yor na soxna soo xam ne jaam la waaye da ngaa jàppan ne kenn rek la ndikiti yow moom yor na ñaari soxna yoo xam ne jaam lañu mbaa lu ëpp ñaar waaye benn nga yëgoon ba tey kon bu la neexee yooyu ci sëy ba bu la neexee tàggoog moom bu fekkee yow jigéen ji gor nga sa jëkkër itam gor la mu nar a takk nag jaam bu jigéen indi bi yoon moom gannaaw bu la takkee ngay gor la bëgg a indi nag jaam bu jigéen nga wujjeeg moom ba tey kon bu la neexee nangu loolu yooyu sëyeeg moom bu la neexee itam nga tànn tàggoog moom mel ne ku ñu fase benn fase boo xam ne amul fay li bu idda ji jeexee rek bu leen neexee àndaat bu leen neexee bàyyi jamonoy jaam amee la ne bu la kenn mayee ab jaam bu jigéenam nga def ko soxna itam lay tax nga sañ koo jël andi sa kër mooy nga sart ko ne ko boo ma ko mayee kat daa ko yóbbu doo ko fi bàyyi mbaa boog lay aada foofu mooy kuñ may soxna muy jaam itam da nga ko yóbbu waaye bu fekkee loolu amu ci moom bi nga mayee jaam bu jigéen nga def ko soxna ba sang ba ne da nga koy bàyyi fii sama kër ma di ko lëggéeyloo ni ma ko bëggee boo ko soxlaa yow nga fekk si ko loolu rek ngay man boo xasee sart nag moom mbaa muy aada da nga ko mën a yóbbu waaye bu dul loolu moom lan la wax rek ne yaa koy fekk si waaye bu la fekk si ci loolu ngay mën a wéy yooyu jamono ka moom jaam bu jigéen ba bu fekkee ka koy takk néewu ko daa koy yóbbu du aada itam ci mu yóbbu ko kon su mayee jébbéer bu jëkkër du tee du tukki ne daa yóbbaale sama jaam bu jigéen bii may naa ko jëkkër waaye damay tukki te dama ko yóbbaale su boobaa nag dañuy wax jëkkër ji ne ko soo mënta ñàkk sa soxna da ngay ànd ak moom da ngay ànd ak borom jaam bi ak sa soxna soosu mu la may bu fekkoon ne nag ki ñu may soxna si jaam daa sart ak da ko koy may muy borom ne ko dama ko yóbbu saa kër mbaa ci barab sangam daa fekk loolu aada moom sang ba dem na di bëgg a tukki du tax mu ne daa yóbbaale sama jaam bu jigéen boobu yooyu jamono sa jaam bu jigéen boo ko wutalee jëkkër laata jëkkër ji joteeg moom mën laa wax jëkkër ji ne ko wàcce naa la can gi ba mu des nag dañu wax ne mu gën jaa néewu can nga xam ne yoonu maalik moom dañu tudd gën jaa néewu can mel ne kaaru dinaar mbaa ñett million mbaa lu ko nuru loolu moom ne ko wéet amagut du ko mën a bàyyee gën jaa néewu can nga waaye lu ca dolli ko rek mën na ko koo baal ne ko jot nga di ko joxe mu ne ci yooyu jamono ku am jaam bu jigéen may ko jëkkër can nga bu la neexee ci sa bopp yaa koy jël lekk ndax ne ko yaa moom jaam bi dañ koy jox ci alali sëy ba tey yaa ko moom na nga moomee jaam ba kon moo xam wéet am na moo xam wéet amut can nga yow mi borom jaam mën nga koo jël lekk mu ne bu fekkoon ne sax daara yi jaam bu jigéen ba gannaaw bu mu ko mayee jëkkër itam du tee rek sañ naa jël alali sëy ja ndax kenn mënu koo tuumaan na ko dañ koy rey bëgg a lekk alali sëy ja tax ndax dagam moom sañ naa lekk alali sëy ja te reyu ko kon rey ko tax ñu wax ko ne ko doo sañ a lekk alali sëyam ba tey bu fekkoon ne borom jaam bu jigéen bi dafa may jaam bu jigéen bi jëkkër gannaaw bi nag mu wëlbati ku jaay ko koo xam ne fa mu nekk dafa sori nga xam ne jëkkër ji may jaam bu jigéen bi dem ba àgg foofee dana metti ci moom koy du tee rek mu sañ a laaj alali sëy ja lekk ko te kenn du ko wax dara bul fàtte ne moom jaam bu jigéen bi may ko jëkkër du tee mu sañ koo jaay ndax bu ko neexoon yow mi nga xam yow la may jaam bu jigéen nga def ko soxna yooyu bëtiku jaay la ko su boobaa nag moom gi nga moom tax buumu sëy ga dañ buumu njaam nga def fa li wax ñu nag mooy bi mu la mayee jaam bu jigéen bi muy soxna itam dawal bëtiku jaay ko keneen te koo ko nekk fu sori foo xam ne yow ngay dem foofa ak dikk dana metti ci yow lool mu ne loolu tee nag moom ñoom jaam bu jigéen bi saña laaj alal li sëy ja lekk ki mu may jaam bu jigéen bi muy jëkkëram joxe wutoon can ga ci moom jaam bu jigéen bi nag daal di jaay jaam bu jigéen ba waa ji dëng dëng joo xam ne bu xasee moom jaam bu jigéen bi moom du may jëkkër ji muy ñëwati ci moom ndegam ki ñu jaay jaam bu jigéen bi ku dëng la koo xam ne du may jëkkëri jaam bi muy ñëw ci moom jëkkëri jaam boobee can du ko warati te it bu fekkee sang bi laajoon na ko can nga itam war na ko ko daal di delloo mu ne nag jamonoy jaam xëyee sa jaam bu jigéen boo ko mayee jëkkër laata muy wéet ak moom nga far ne ko naa la jaay jaam bu jigéen bi mu nangu nangu koo jënd mu ne kon can nga day fa dugg ca njëg ga boo xasee waxaale moom ba jugoo ci njëg rek dañuy jàpp ne can amatut dugg na ci biir njëg googee ndax da nga koo mayoon rek soxna waaye jëttoo na wéet ak moom kon nag boo bëti koo jaay ko ko can nga duggaale na ci njëg rek donte sax yow li moom jaam bu jigéen bi di yaa ko jaay ci sa coobare xanaa kay da ngaa bari bor ba ñuy jaay sa alal far àttekat ba jaayaale jaam bu jigéen ba kookee nga xam ne mu nga ko mayoon muy soxna itam ndaw wéet amagutoon rek kon njëg ga day yóbbaale can ga kenn du waxati jëkkër jooju ne ko joxeel can jamono ñuy teqale gor ak jaam ku takk jaam bu jigéenu jàmbur boo ci amee doom it kookee moo moom jaam bu jigéen ba mooy moom sa doom joojee muy ab jaam ne yaayam kon nag mu ne ku takk jaam bu jigéenu jàmbur du sañ ne bu may joteeg moom ba ndoxu man yi muy waaj a génn day génne sawukaay bi ci bitti ndax céebéer bi bañ a am doom lay tax mu sañ ko rek mooy borom jaam bu jigéen ba ak jaam bu jigéen ba ci boppam ànd ak moom ca loola ñu bokkee nangu ñoom ñaar rek kon bu joteeg jaam bu jigéen ba ba yëg ne liy génn ci sawukaay bi ñu ndox mi yàlla sàkke doomi aadama mi ngi waaj a génn mën naa génne sawukaay ba tuur ndox ma ci bitti ndax jaam bu jigéen bañ a am doom waaye bu fekkee ne jaam bu jigéen ba moo ko sangam nanguwuñ loola kon moom mi jëkkëri jaam bu jigéen ba du sañ loolu lu may nag jaam bu jigéen ba dañ caa yaakaaru ak ëmb ndax dafa ndax dafa ndawe lool mbaa mu mage lool mbaa ñu xam ko ci jësir ñàkk am doom su demee noonu kon jaam bu jigéen ba ci boppam su nangoo bu jëkkëram day jotee ak moom bañu bàyyi ndox ma jàll kon jëkkër ja mën naa wéy ca noona jaam bu jigéen ba rek nangu loola moom lañ koy seet ndegam yaakaaruñ ne mën naa am doom ngir daa ndawee bopp mbaa daa mage bopp mbaa dafa jësir day wane ne ba takkee soxna soo xam ne gor la ci suñ jamono ji nga xam ne moom ñëpp ay gor lañu amatu teqale gor ak jaam góor gu ne soxnaam bi ca déggoog moom man na buñ dee jote rek ba ndox moomuy génne ci sawukaay bi bu ndox moomu dee waaj a génn rek buñ ci amee déggoo mën naa génne sawukaay ba tuur ndox ma ci bitti mu bañ a jàll ci biir ba doom di ci am soxna sax ci boppam rek bu ci amee déggoog jëkkëram rek loolu mën nañ ko waaye nag bu fekkee soxna sa bëgguwut loolu jëkkër ja du ko sañ taw rek buy joteeg moom war naa bàyyi ba ndox moom may jàll ci biir yàlla muy dogal nag ku soobee mu dogal doom am ca ku soobutit doom du ca am foofu nag si la boroom xam-xam yi sukkandikoo ba wax ne li ñuy wax tanzimu nasli na jigéen ji amee doom ñu teg ko ci yoon woo xam ne dana ko amee njëriñ mook jëkkëram manees na ko ndax sax na ci hadiis boo xam ne al buxaari ak muslim yépp añ nañ ko jële ci jaabir jaabir ne kunna naasin ala hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal qur'anu yanzil jaabir dane ci jamono yonante bi loolu ñuy wax di def booy jotee ba ca biir nga bañ a bàyyi ndox ma ca sawukaay ba muy jàll daal di koy génn ci bitti ndax bañ a am doom jaabir ne daal ko def te booba alquran ngi wàcc su fekkoon ne lu aayoon la faw alquran wàcc aay nu ko ci lañ xam ne kon lu ñu wax alhaslu koy firi ci wolof yàgg yi dafal te mooy bu jotee soxnaam bañ a bàyyi ndox ma ca sawukaay ba muy jàll ndax bañ ñu am doom lu dagan la sañees na ko waaye dañuy wax ne nag li araam moom mooy def luy tax du amati doom mukk mukk mukk def luy tax jigéen ji du amati doom mukk mukk moom bala ñu ko sañ docteur boo xam ne bu xam-xamam mat sëkk la mu amuk maandu moo wax ni jigéen ji bu amatee doom bakkanam mën na cee des mbaa bu amatee doom nangam ak nangam wax lu diis loo xam ne mën na koo dal su boobaa nag ma des naa dagg juróom jigéen ji ndax aar ko aar bakkanam waaye nag def loo xam ne rek moom day tax mu jigéen jee ana doom di njëriñ ci moom di njëriñ ci dëkkëram rawante na muy jigéen joo xam ne day nef nef bu tegaloo ba mujj am doom mën naa doon ngaañ ci moom kon mën naa juboo jëkkëram ñu seet nu ñuy nase na muy amee doom moo xam dañ koy awee ci ni ñu wax bu joteeg moom ba ñu bàyyi ndox mi ca sawukaay ba jàll waaye loolu mbaa ñu dem ci docteur yi nga xam ne ñoo féetewoo googu wàll am ca xam-xam bu baax a baax ñu seet nu ñu ko defee noo xam ne du am yenn wàññeen dañuy wax ne nag bu ñu mënee def noo xam ne kenn du xool awra yi jigéen ja moo gën ndax xool awra dañ koo diisal lool su fekkee ne mayees naa mënuñ pexe bu may xool awra ja moom ñu def ko bu àggee nag ci mënta ñàkk tey jigéen ji defal ko léetee ëmb itam mënta ñàkk ñu xam ne kon lor jaa ko woote soññe gi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam soññe woon nag ci jullit ñi di jéem nu ñu baree ay njaboot nu ñu baree ay doom ndax nee na bis pencee day ëppalanteeg yonante ci des barik li mu xeetam muy la mu ne tazawaju al wadudal walud fa inni mukaafirun bikumul umama yowmal qiyaamati am na baat bu def fa inni mukaafirun bikumul ambiyaa yowmal qiyaama mu ne na ngeen di takk jigéen ji di bari am njur ndax su bis pencee damay ëppalanteeg sama mbokk yonante yi ma bëgg leen a wan su boobaa li ma leen ëppalee barik nit ñi nga xam ne ñoo ma toppoon loolu na kon tegtal la ci ne nit ñu baax ñi fu ñu toll war na ñuy jéem bari njaboot ndax su ëllëgee ñu dimbali yonante bi ci mu wane nu mu ëppalee yonante yépp bari mbooloo mi ko toppoon bokk ci xeetam nekkoon ci lislaam moo tax ñoom dañuy wax ne nañu moytu daal bañ a bari ak njaboot ndax ne yar bi day jafe mbaa séerub dund day jafe ak di lay lay yu mel noonu daal boroom xam-xam yi dañuy wax ne mat naa moytu lool te jéem rek lépp luy baril xeetu yonante bi bu demee nag ba am ngànt nga xam ne soreele njuruma moo gën ñu defe ko ci yoon woo xam ne wu sellu lay doon du am ngaañ ci jigéen ji te bu ñu demee ba gisatuñ ngànt loolee ñu delluwaat rek ci di def na nga xam ne mooy tax yàlla may leen njaboot gu yaatoo yaatu gu bare bari ndax ñu dimbale yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci li mu wax ne moom la bëgg day jàll ci si yi nga xam ne ñoo araam bi mu toll nag mooy jigéen joo xam ne yéefar la te nekkul ci diine ji bàyyi ko ci asamaan maanaam nekkul ci diiney yahood mbaa diiney nasaraan jigéen ji mel noonu araam na ci ab jullit moo xam ci takk la bu doon jaam mu moom ko it du mën a joteeg moom bu dee nag jigéen ja nekk diiney yahood mbaa mu nekk diiney nasaraan moom te muy gor boole ci bu dee jamono yi gor jaam amee ci teqale dañuy sart muy gor ka ci nekk gor ab jullit mën na koo takk waaye ka ci nekk jaam nag moom mën naa joteeg moom ci kaw moom ko rek mu dib jaamam waaye mënta joteeg moom ci kaw takk ko muy soxnaam jamono yi teqale gor jaam amee jigéen ja nekk ci diine yahoot mbaa nasaraan bu dee jaam soo ko moomee mën di joteeg moom ci kaw moom nga waaye nag yooyu jamono ab jullit suñ takk ka nekk jaam ca ñoom ka nekk gor ci ñoom rek la mën a takk te Maalik moom nee na sib na ko bu sañoon yow mi di ab jullit doo takk jigéen ja nekk ci diine yahoot mbaa nasaraan ndax doo ko mën a aaye sàngara doo ko mën a aaye mbaam xuux te boo ci amee doom mu yar ko ci noonee mu mel doo ca mën dara mu ne nag te sib ga gën a méttee muy fa ko maali di gën a bañe mooy nga takk ko te nekk ak moom ci réewum kéefër soo nekk nag moom ci réewum lislaam sax xëy na moom nga mën ko awale yoon waaye boo nekkee moom ci këru kéefër ga nag moom fa la gën a jekkoo ci di dundee nu ko neexe ak yare doom ya nga am ak moom nu mu ko neexee moo tax foofu la ko maali gënoon a sibe yéefar bu góor bu tuubee dugg ci lislaam fekk nag mu yoroon soxna soo xam ne daa nekkoon ci diiney yahood mbaa diiney nasaraan dañ koy wax ne ku mën nga kuutee rek muy sa soxna ba tey ndax ndegam ab julit sañ naa waaxu takk yahoodiya mbaa nasraaniya kon yow bi nga tuubee te fekk sa soxna si nekk yahoodiya mbaa nasraaniya mën nga koo fartee rek muy sa soxna ba tey bu ab yéefar tuubee fekk mu yore woon jaam bu jigéen boo xam ne daa nekk ci diine yahood mbaa nasraan su jaam bu jigéen boobee dalee di gore mbaa jaam bu jigéen boobee dal di tuub ñu ne ko kon téye ko ndax su fekkee jaam bu jigéen boobee daa dal di gore kon daal ne soppiku gor su nekk ci diine yahood mbaa nasaraan te xam nga ne jullit sañ na koo takk kon ñu ne ko téye ko rek muy sa soxna ba tey su fekkee ne it daa doonoon jébéer walbatiku na dugg ci lislaam kon ba tey yéefar bu góor bi ko yoroon da koy daal di téye rek mu daal di nekk amaatam muslimatan taxta muslim mooy daan lay doon jégër bu doon julit julit bu góor yore ko te nag luy sart ci foofu sart ya nga waxoon ci doo mu nekk julit ci cosaan bala ngaa sañu jóg takk jégër bi nekk julit ndax sañ ca sartoon kenn du ko sart fii ndax ni mbir mi deme su góor gi nekkoon yéefar tuuboon dugg ci lislaam fekk soxnaa moom nekkoon ci diine joo xam ne bàyyikowul ci asamaan moo xam danaa jaamu xëram mbaa leneen waaye majjoo si yàlla ko itam su gaawee tuub nga xam ne bi góor gi tuubee yàggul rek moom itam mu tuub dañ koy bàyyi moom rek muy soxnaam bañ a seet dara ci nam ko takkee woon ak dara bu tuubee fa saasa ñu bàyyi koog moom bu fekkee yàggut it lu mel ne weer wi mu wax ñu bàyyi koog moom rek mu téye ko muy soxnaam nee nañu sax bu fekkoon ne bi góor gi duggee ci lislaam te soxnaam soo see nekkoon ci diine ju bàyyikowul ci asamaan dañoo waxoon soxna si ne ko defal na sa jëkkër ji dugg ci lislaam mu bañ am nañu ne bañ googee mu bañ du ci yàq dara dina ngoo tuub ci gannaaw ba te yeggul rek mel ne tolloog weer ñu bàyyi jëkkëram joojee yore ko am ñu ne kay bu fekkee daa njëkk a feeñalu bañ moom te bañ ko gaaralee lislaam gannaaw ba sool ba di ko tuub it duñ ko bàyyeeg moom waaye mel ne say boo jàpp rek ñu bàyyi koog moom moo gën a wér léegi nga weesoon mooy ba góor ga njëkkee tuub muy wax nag fii ba jigéen ji njëkkee tuub ñu ne ko yow nag si jëkkër ji kon tàggoo ak moom ndax ndegam yow dugg nga ci lislaam te moom nekkul ci lislaam say boo daal jàpp idda rek ba mu jàppee idda nag laata idda jay jeex far jëkkëram ja nekkoon yéefar dal di tuub ba tey kon ñu bàyyi ko moom mbaa ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk tuubandoo ci yenn yenn jamono ba tey kon ñu bàyyi leen ñu doon jëkkër ak jabar bu fekkoon ne nag demewul ne nga wax nga xam ne ba góor ga njëkkee tuub teg nañ ci lu ëpp weer jigéen ji moom door a tuub mbaa ba jigéen ja njëkkee dem na ba iddaam jeex jëkkëram door a tuub kon dañuy wax ne tàggoo nañu te tàggoo ba des ci tudd fase ndax si yéefar yi moom yoon day jàpp ne du dara bu yoon dee dindi si mel noonu mooy si bi yéefar yi du ci tudd mel ni passé nga xam ne buñ bokkoon tuub ñoom ñaar ci gannaaw ba ànd ci sëy itam day mel ne mos ñoo sëy benn yoon day mel ne lii mooy seen bu mu sëy gu yees la jiitu woon des jàpp dara mu ne ba tey yéefar yi seenu fase duñ ko jàppee dara bu fekkoon ne ab yéefar dafa fasi soxnaam ci kéefar ga ñetti passé gannaaw ba mu dugg ci lislaam kooku itam dugg ci lislaam muy jigéen ja du tax ñu ne ko faaw nga bàyyi ba jëkkër jaar fi ndax pase gam pase woon ci kéefar ga duñ ko jàppee dara ndax ndegam sëy bu baaxutoon kon buñ ci tuddee fase itam pase ma du am fu muy dal su yéefar bi fase woon soxnaam ñetti fase gannaaw ba mu tuub jigéen ja itam tuub mu bëgg koo takk duñ ko wax ne ko faaw nga bàyyi ba jëkkër jaar fi ndax liñ ko fase woon ñetti fase ci kéefar ga dañ koy bàyyi mu takk ko noppi mel ne bi yoon la ko njëkk a takk ñu nekk ci buumu sëy gu yees mel ne pus koo fase benn yoon ba toppee noonu ñu waxee nag fal hukmu kon àtte ga bi talaax yi ca pase ma in tarafaha ndem dañoo yëkkati konte ilinaa jëm ci ñun muskilun aji lënt lay doon ndax dañoo wax ne yéefar bu góor bi ak yéefar bu jigéen bi bañ tolloo ci kéefar ga su yéefar bu góor bi fase soxna sa ñetti pase ñu bokk juboo ci ñëw ci ñun jullit ñi ñu àtte leen àtteeg lislaam àttekat ba daal di àtte ne kon yow sa soxna si bala nga ko mën a takkaat yow yéefar bi jëkkër dafay jaar ndax àtte lislaam bi ngeen nangu te bokk ñëw ngir loolu loolu la wax boo toppee jooju wax ne àttekat jullit ba faaw mu waral ci ñoom ñetti pase ya te wax góor ga ne ko faaw nga bàyyi ba jëkkër jaaral si nga doo ko mën a takkaat day wuteeg li nga waxoon ne pase mi yéefar caaxaan la neen la kenn du ko jàppe dara moo takk ga ñoo yemoo ndax bu ñu nee fase gi yéefar du dara su ko jàppe dara ba noppi am ñu wax ne moom lu mel ni àttekat ba da koy jàppe ñetti fase ba ne jëkkër jë bala nga ko mën a takkaat jëleen jëkkër dafay jaaraat kon day mel ne pase mi yéefar mi ci yooyu jamono nekkul ak neen moo tax mu ne kon atte ga ñuy atte bu yéefar bu góor bi fase na soxnaam si ñetti pase te bala ko mën a takkaat jëkkër dafay jaar àttekat ba atte fase gu mel noonu kon dana lim toog ne nga waxe woon ne ab yéefar moom paseem neen la caaxaan la kenn du ko jàppe dara yéen ci tawil la yoo xam ne boo delloo ci muxtasarul xalil andi woon na ko fa waaye moom àtte bu njëkk bi nga xam ne moo wéral pasem yéefar ba rek dañu wax ne seen pase moom neen la mu mooy leeral ñu mu lënte ci googu wet ak yéefar bu tuub nag fekk mu yoroon lu ëpp ñeent ci soxna yoon da koy may mu tànn ci ñoom yoroon ñeent ñu ko soob doon ci sax ñeent yañ ko mujj a may la tànn itam dara nekku ca doonte sax da ca am ñaar ñoo xam ne dañu di ay mbokk yu jigéen nga xam ne ci lislaam kenn mën leen woon a boole du tee ku ko ca neex rek lay tànn moo xam dañ koo mayandoo woon ñaar ñooñee wala dañ koo may kee wëlbati ku may ko ca des du tee rek ku ko ci neex lay tànn bàyyi ko ca des moo xam wéet naa kenn ka wéet ka ca des wala wéet naa ñaar ñëpp ku ko ca neex rek lay tànn bul fàtte ne ñaar ñooñee mu boole woon te sañu si leen a boole bu doonee ndey ak doom nga xam ne kenn ka moo yaay ka ca des moom day am ak dangal tuuti dana feeñ fii nag ndax su fekkee ne ñaar ñoo ñee kee mooy yaay ka ca des muy ndey ak doom mu takkoon leen ca kéefar ga su fekkee jutu caa laal kenn ak may ronga fa doxoon ba tey kon ñoom ñaar ku ko ci neex rek mu tànn ko téye ko moo xam dañ koo mayandoo woon ñaar ñëpp moo xam dañ koo mayoon kee wëlbati ku may ko kee moom daal dégam jotu ci laal kenn rek ku ko ci neex tànn su fekkee nag ñaar ñëpp la jotoon a joteel moom ñaar ñëpp koy araam bu fekkee ne it ndey jaag doom ja kenn ka la joteel ka ca des moom ak may dong la kam joteel dong nag lay mën a téye kam joteel daal di koy araam bu yéefar bu góor bi tuubee fekk mu yoroon lu ëpp ñeent ñu ne ko tànn ci ñeent bàyyiñ ca des ca na muy tànne ay anami anam la bu njëkk bi moom du la bett mooy mu wax ci làmmiñam ne diw mii tànn naa ko téye ko li ci topp nag mu amaana mu jaaxal la waaye noonu la ko yoon jàppe mooy aw bi taraax ci topp bu ne kii moom fase naa ko dañuy jàpp ne da koo tànn ba noppi fase ko ndax fase moom soxna képp lañ koy def nga xam ne léegi dañuy jàpp ne ñeent ñi sañoon a tànn tànn na ci kenn ba noppi fase ko kooku génn ñett rek la mën a tànnaat te bu ràññee loon ñeent ne ñoom ñeent yi de moom fase naa leen dañuy jàpp ne kon jeex na mënta tànn ci ndax fase gi mu wax soxna képp lañ koy def te moom tudd na ñeent ràññee leen ne fase na leen day mel ne comme leenu tànn ba noppi wëlbati ko fase leen bu amee nag ku wax ci ñooñu ne ko yow day yaa ngi mel ni ci man sama gannaaw yaay dañuy jàpp ne kooko tànn na ko ba noppi wëlbatiku zihaar ak moom ndax zihaar moom soxna képp lañ koy defal ilaa mooy ginne diir sàngam du ma fi jotee sama soxna te diir ba ëpp ñeenti weer mel na ñooñu mu sañ a tànn bu ci amee ku wax ne diiru juróomi weer du ma fi jotee ak moom dañuy jàpp ne tànn na ko ba noppi nag def ilaa ci moom ñu àtte ko àtte ilaa awat in nag mooy comme jékki-jékki jotee ak moom ci ñooñu ñu jàpp ne da koo tànn téye ko ndax awat wu jote googu bon gi mu doon soxna ci moom moo ko ko may moom yéefar bi tuub te fekk war loop ñeent bu amee ca soxna yi yoroon ku wax ne teg naa ab séyam fasaxtu nikaaha dañuy jàpp ne moom mënatu koo tànn waaye ndegam baatu fasax nag moom daañu ko jëfandikoo ci séy bu ñu dogg ci araamam sax yóbbu rekk ci séy bu wér mbaa séy bu ñu wute waxoon ne la ne la séy bu ñu dogg ci araamal sax yoon da koy tas tudd ci baatu fasax tas kon nag bu ne diw mi moom tas naa ab séyam dañuy jàpp ne moom ci bopp mënatu koo tànnati waaye day mel ni ku tànnagul dara dara ba tey mën naa yu tànn ci njëres soxna yi meroon nag koo ci xam ne may kese moo doxoon diggante ak moom su fekkee téyewu ko kenn du ko ca war ndax yoon a ko dind rek kon ndegam may kese la woon dara du ko ca war waaye nag képp koo xam ne moom jotoon naa wéet ak moom faaw rek mu war caa joxe can du mën a ñàkk day gën a leeralaat yi araamal sëy te wax na ko ci gannaaw mooy góor ga ba jigéen ja kenn ka tawat tawati faatu dañ koy aaye sëy bu dee góor bu wut soxna bu dee jigéen bu wut jëkkër mu ne nag saa yu ko yoon yëgee rek daal di tas boobu sëy donte sax kookee tawat aajowo woon na kookee muy sëyam ndax mën koo dimbali ci tawat ja wala sax bu ñu nee dañu bañ rek mu dugal aji doon ña ko war a doon nee nañ ko mën ngaa takk koy du tee bu takkee rek su ko yoon yëgee daal di koy tas bu fekkee ne jigéen ji tawat tawati faatu moo wut jëkkër su fekkee kookee mu wut muy jëkkëram jot naa wéet ak moom kon can ga ñu waxante woon rek la ko jëkka joojee di jox ba noppi nag ñu tas sëy ba moom faaw ñu tas ko bu fekkee ne góor nag moo tawat tawati faatu ba noppi wëlbatiku takk bu yoon dee tas sëy ba te fekk na wéet am day seet yett yii lu ci gën a néew mu jox ko jigéen ja dañuy seet ku def alalam ñetti xaaj mu benn xaaj bay toll seet it can ga ñu waxante woon nu mu toll seet it can gi nga xam ne moo jaadu rek nga xam ne moom lañu jox boroom jigéen joojee bu ko borom góor googee dee takk si ba tey ni mu toll yett yi lu ci gën a néew rek moo koy wax da ko misaale moom saraa bi fekkoon ne bi mu faatoo dafa bàyyi ci misaal fanweeri diinaar can ga ñu waxante woon moom doon fukki diinaar ak benn canuk moromum jigéen ja war a mat fukki diinaar ak juróom dañuy wax ne kon lu tolloog ceeru alalam rek moo koy war mu fukk ndax xam nga can ga ñu waxante woon ëpp na fukk canuk kenn ëpp na fukk te lu ci gën a néew nga ne moom lañ jox jigéen ja kon fukki diinaar rek la ñuy jox jigéen ja bu fekkoon ne nag can gi ñu waxante woon daa doon juróom-ñett mbaa canu kem tollu juróom-ñett dinaar kon jox ko juróom-ñett kenn du ko jox fukk bu fekkoon ne nag canu kem dafa nekk fukk can gi ñu waxante woon tam doon fukki dinaar kon yaar ñooye moo fukk rek lañ koy jox bu ñu tebbi woon sëy bu nag ca ba ko yoon yëgee te fekk wéet amagut kon ni ñu ko déggee woon ci gannaaw kenn du ko jox dara sëy boo xam ne kenn ko daa tawat moom ni ñu ko déggee woon ci gannaaw rek saa yu ko yoon yëgee daal di koy tas moo xam wéet am na moo xam wéet amut waaye nag bu fekkee laata ko yoon di tas ka tawatoon far na wér kon dañuy bàyyi sëy boobu mu wéy kenn du ko tas bu ñu nee góor bu tawati tawati faatu dañuy bañ mu takk ndax day mel ne ku yéene jigéen ji ab dono ñu ne waaw bu dee takk nag koo xam ne yoon neeru doon nag mel ne mu ne day takk jigéen ji nekk ci diine yahut ba nasaraan nga xam ne wuute ga diine mooy tax du ñu doonante wala mu takk jógéer nga xam ne jaam moom du doon bu ne du tee ñu aaye ko ndax dañuy jàpp ne buñ ko bàyyee mu takk jigéen ji nekk ci diine yahut ba nasaraan xëy na kooko sottiku dugg ci lislaam te kon lañ bañoon muy doon gën a am bu dee jéedóor ba itam xëy na mu gore te bu goree daal di bokk ci ñu doon lañ doon bañ daal di am moo tax faaw ñu aaye ko loolu wal ittifaaxu ala isqaati sadaaxi mufsidunil xaq da